ki nga xam ne moom la ñu yàlla booleel di moom Mamadou Mamour Diallo yàlla euh, dogal assemblée commission enquête parlementaire bi doon saytu ay ay ay weer yu bari daal di def rapport am ajjuma bi weesu daal koy blanchir seetal ko daal ni gisuñu euh, détournement de deniers publics parce que mënu doon a am fekk euh, loolu assemblée parewul liggéeyam booba tey un an ñu ngi nit ku ñuy wax Ousmane Sonko di nit koo xam ne jóg taxaw di jël si deru Mamadou Mamour Diallo di si teg ne dafa détourné quatre-vingt-quatorze milliards euh, tey ji ñu xëy suba di mardi avocat yi nga xam ne euh, ñooy avocat Mamadou Mamour Diallo xëy di déposé ci plainte parce que Ousmane Sonko kii nitam mooy liñ ñu doon wax ne Mamour Diallo du mës a déposé plainte tey nag ñu gis leen ñu ñëw ay activistes pour di saboter te loolu jàpp naa ne du ay activistes c'est des c'est des gens de Pastef parce que Guy Marius Sagna bërki démb moo toogoon si taabulu euh, conférence de presse su Pastef bu ñu nax Sénégalais yi di wax naan ay ay aar lu ñu bokk ak ay yëf def ay ay France dégage yooyu ñoom ñoom ñoo ñëpp c'est des gens du Pastef parce que ñoom li leen intéressé ak contrat yi ñu signé ak yenn ay lobby mooy taal dëkk bi def nañ ko si pétrole bi def moom la ñu bëgg a def ci coowal 94 milliards parce que Ousmane Sonko mi nga xam ne moo accusé wax ne Mamour Diallo ne détourné ne yor na ay preuve ab député la te euh, Ousmane Sonko pour mu wuy ji yoon il fallait ñu dindi immunité parlementaire am wala ñu pare parce que moo tax député yi woo ko daal di taxawal commission enquête parlementaire nanguta wuy ji ba pare li ma gën a jaaxal yow nangoo wuy ji wuy ji ba pare di commentaire si li nga xam ne mooy rapport bi di ko wax di wax nit ki kay bu la loolu intéressé wul waroo see wax loolu moo tax mu doon def jeu di def coow nekk ci dëkk bi di wax lu du dëgg naan Mamour Diallo du mas a porter plainte def nii nangam pour que ñu yàkkamti li ñu war a def parce que lu ne dafa am temps parce que Mamour Diallo dafa am ay nit ñu mu àndal am famille du jekki-jekki def lii loo loo xam ne te te ñoragul parce que Ousmane Sonko waxewul wax ji tribunal demul porter plainte directement tribunal da koo taxawal teg ko ci biir opinion bi wax ak sénégalais yi wax leen loo xam ne du dëgg ñun. ñu taxawal weddi génne ay preuve wane ne lii Ousmane Sonko di wax du dëkk affaire bi affaire wu ak moog citoyen boo xam ne Sénégal la dëkk yor fa même un ngay nekk si deru nit ki lu bon lu ne nga wax ko ko foo foo taxaw rek bu la micro bu ñu la tegee micro yi rek Mamour Diallo mais ñu porté la plainte war a porté plainte ngay tëbaka dal di def na te nga doon wax naan du ma sa porté plainte affaire bi yoonu président de la république Macky Sall nekku si affaire bi affaire u Mamour Diallo la ak Ousmane Sonko justice ñëpp la fi nekkal moom bu ko justice en mu ne justice su Sénégal bu ko arrangé mu ne justice su Sall parce que moom li mu gëm mooy ay fen ay tappale Ousmane Sonko fenkat la du nit ku baax du nit kuy wax dëgg parce que nit. koo xam ne lu muy wax rek xam maa xam nangam xam naa nangam xam naa nangam te doo jën ay preuve nit ki kay boo xamee dara wala nga fekkee wala nga yor dara da ngay jënd les preuves comme ñun niñ ko def si 12 pour cent yooyu 12 pour la ñoom ñoom activiste yooyu doon wax ñoom ñoo waroon a porter plainte si 12 pour cent yooyu Ousmane Sonko loolu laa leen wax ay Guy Guy Marius Sagna ñooñu duñ ay sénégalais sax ñun confiance bi ñu am mooy nit nit koo xam ne dafa taxaw di accuser ñu. ñu xam ne li ñuy accuser lii du dëgg Sénégal yi xam ne loolu du mënta nekk ñun kay am nañ confiance te wóolu nañ ci su réew ñun kay yuuxu ñoo ngi dal ànd ak tekk di déglu yoon ñun li ñu war a def def nañ ko bind nañ suñ plainte déposé nañ ko ñoo ngi déglu yoon nekku ñu di conférence de presse picc mu jog sax nga conférence de presse picc mu taxaw fee rek nga yuuxu ah Macky dama bëgg a tëj wala dama def nag loolu ñun ñun dañu gëm suñu justice su réew gëm yàlla aussi toog di déglu justice Sénégal parce que xam nañ ne ñun. dañoo dañu dañu dañu dañu dañu set parce que assemblée commission enquête parlementaire bi du ay caaxaan nag parce que ay dañ si déglu ay kilifa diglu si ay nit def ay enquête def ay investigation ay député yoo xam ne dañu ay député du peuple lañ kon ça veut dire du nekkul lu nekkul loo xam ne euh, lu lu lu lu ñàkk fayda lu am solo la si réew parce que li muy am bariwul buñ ko xoolee Sénégal ñu xool enquête parlementaire mm, yan temps lay am bariwul kon loolu lu am solo la ñun dañu confiant ñu ñi confiant wul kay ñooy ñiy kiri di wax di def nangam ko war a déposé plainte am ñoom bi ñuy déposé seen plainte ñun jaaruñu fa ñun ñuy déposer plainte ñuy ñëw di wax kay ñoom ñoo tiit.